mooy formation bi nga xam ne moom la ñu am tey jii euh, li nga xam mooy euh, avenir de l'enfant moo ñu ko euh, jagleel tey jii mu nekk formation boo xam ne formation boo xam ne ñu fay ñu ci dara dañu invité rek et puis wax ñu ni muy demee ñu ñëw toog ñu defal ñu ko mu nekk lu am solo nag loo xam ne vraiment dafay laal li nga xam ne mooy xale yi. xale chaque fois ñun dañ ci dégg ay affaire yu doy war yo xamné da ci am parfois da ngay dégg ñu xalé xale xamné ko violé xale bi am peut-être ay pédophile ñoo topon ñoo nekkon ci mom yooyu yëpp dañ koy dégg mais nak lu ci le plus souvent ñun loolu yëpp concept yoyu xamuñu ko tellement maîtriser ñu ko bien que ay journalistes lañu mais journaliste mënul xam lepp waye ñi nga xamné ñoo xam question yi maîtriser ko comme avant de l'enfant ñom buñ lay wowe ba jox la formation yu mel non ñun dañ ci gëna contane dañ ci gëna en tout cas nek lo xam ne day bax suñu liggéey dinañu permettre nak tay buñuy ñuy waxati ci question yu mel non rek ñu xam lan moy ss lan moy pédophilie lan moy en tout cas viol et puis man ko jox une bonne information à l'opinion euh, sénégalaise tay it di rappeler aussi tamit bu même bu du lekkee nekkul sax journaliste ñun ay borom kër lañ am ay jabar am ay dom, te képp ku am dom am jabar tam baxna tamit yu mel noonu nga def ci attention bu baax. fa dafa dafa jaadu dafa jaadu ndax nag taskatu xibaar euh, borom kër la taskatu xibaar doomi réew mi la taskatu xibaar wayjur la am na doom am na soxna am na borom kër am na ay jarbaat dañoo jàpp ne lépp loo xamante ne dafa dañu koy yëkkati jëmale ko ci kaaraange gone yi war kaaraange tuut tànk yi waroon ci am xaaj ak seen beneen bi mooy nag tànn leen ñoom ñi nga xamante ne seen kàddu ak seen wax dafa jot. foo xamante ne ñun jotewuñu fa dafay am solo dañoo jàpp ne bu fekkente ne da nga bëgg a móol wala ngay defar ñi nga xamante ne seen taxawaay dafa jàng jëmee ko ci mbiru yar doomi aadama mbiru jox leen xibaar yu mat sëkk dañoo jàpp ne ñooñu boo leen beddee beddi lu ëpp lu am solo fi seen kàddu yegg fi seen wax yegg fi seen bind yegg seen xalima fa mu jote ñun suñu kàddu jotew fa dañoo jàpp ne nag mbiru kaaraange tànk yi du ñun ñi ci nekk dong ñoo ciy def suñu pàcc yéen a ngi ciy def lu am solo xëy na dangeen ngeen ko mënut a natt wala mënu leen xayma fan la fan la yem waaye daal li may wax mooy bu dee dañuy móol dañuy jàpp képp koo xamante ne am na pàcc bu mu mën a doxal ci li ñuy móol euh, benn bi mooy ngeen li ñu fi taataan ndax nag du ñun ñoo joxe dañoo doon sottinte xalaat li ñu fi taataan ñu jariñoo ko li ñu fi taataan bu ñu fi jógee ñu gën a ñawal suñu taxawaay jëmale ko ci suñuy doom suñuy jarbaat suñuy sët li ñu fi taataan bu ñu fi jógee ñu xool nan la ñu koy seggee bu ñu koy segg nag dañuy xool li nga xamante ne mooy des nan la ñu koy mën a xellee ba nga xamante ne xëj na du tey am xel danay am solo dañoo jàpp ne euh, ci liggéey bii ngeen di def nii lépp loo xamante ne jagleel nañ leen ko ci fànnu xam-xam ci fànnu xalaat ci fànnu ñawal gis-gis bu yeggee ci yéen pexe ba ngeen ciy am ak seen xarañ bi ngeen am dañoo yaakaar ne ñun ñu nekk ci gone yu guddi ak bëccëg fa ngeen jote ak la ngeen ma ne ñun manewuñu ko kon nag fa ñu tële yéen a koy yeggali moo tax ñu jàpp ne ñun de du ñun ñoo leen di jox waaye dañuy sottinte xalaat te loolu moom moo fi am tey ku nekk dafay bay waaram rek ci tool bi